duñ ko gagné. Mhm. ren kees dollee ko ci. voilà c'est pour cela parce que. Euh, maintenant mu am ay régions yu bees. Mhm. ay zones yu ñu ñàkk mu jaaxal ma. mu jaaxal leen voilà loolu wala score yu ñu réduire mu jaaxal ma. surtout Lolo. c'est-à-dire mhm. la perte de la région de Kafrine. Kaffrine. ak forte mobilisation yi moo tax ma Kédougou voilà non Kédougou sax PDS da ka daan gagné. da ka daan gagné mais cette année ci Guirassy. du dëkk moom moo euh, euh, géngeneew bañ ma nee perte nañ géngeneew saa mhm. dafa def tilt ci sama bopp mhm. bañ ma nee perte nañ njaafat mosuñu ko ñàkk mhm. perte nañ ko ak quatre-vingt-neuf voix de différence dafa def tilt ci sama bopp ba ma gisee score commune Fatick entre Amadou Ba ak Jomaay Jomaay mu mu gàtt dool différence bi tuuti lool dafa def tilt yenn résultat yooyu soo ko jotee da ngay xam ni ñàkk nga élection da ngay xam ni askan bi won nañ la gannaaw. yéen kay maatam doo dese. non dama da ngay xam ni askan bi won nañ la gannaaw maatam malgré les résultats fleuves yañ fa daan am. Mhm. dem nañ ba ñoom ñu am fa yenn score yi. Mhm. dafay taxaw laaj seetlu. Mhm. ñu taxaw seetlu jàngat. xam nga man wax naa ko fii ci comportement bi ñu am. ñun en tant que responsable et leader dans cette coalition Benno Bokk Yaakaar parce que liñ doon liñ doon liñ doon ŋàññi politique du caravane de mobilisation bu force say nit rek ngay àndal. Mm-hmm. ñay voté ngi surtout les moyens mais dans le département de Dakar te te gagné woo leen moyens sax génnul soxna mm-hmm. si. Medina. Mm-hmm. Benno Bokk Yaakaar def na bon bu par rapport à 2017 2022. parce que 2022 on avait perdu avec un écart de 10 000 voix. Bir Medina Bir Medina mais bii pas 5 000 voix là. parce que Bamba ñëwoon na Bamba terewul dañoo perte dix mille voix. mais bii avancé waat avance na ba distance bi wàññeekul dafa yokku ak doole. parce que Dakar dañoo woteelul kenn jamaay fay lañ wote ki nga xam ne mooy Amadou Ba ñoom cest à ba pare wane leen sanctionné Khalifa Sall Khalifa c'est ça voilà borom Dakar borom Dakar mhm. mu jël troisième mhm. ci Dakar loolu xam nga lu muy wane ni Ousmane Sonko motax Bassirou motax sama mbokk opposant bu bess bi Barthélémy Dias nek maire Dakar effectivement ci coalition ba mhm. donc li nit ñi di wax ni Ousmane Sonko fal nay député fal nay maire fal na président de la République nek ci ci ci ci ci ci élection présidentielle bi la feeñ parce que ñu ci bari tay suñu nekké député c'est grâce à lui mhm. ñu ci bari suñu nekkee maire moom moo tax us Bassirou Diomaye su nekkoon moom cundum génn moo génn campagne Sénégal du gagné. Ah, loolu kay wax. Ousmane Sonko bi ànd ak moom campagne wax ne Diomaye laa déglu la moo tax ma ne la l'apport de Ousmane Sonko su nekkee dañuy analyser ñu taxawee taxawaay chroniqueur mhm. l'apport de Ousmane Sonko su la gestion du pouvoir de Bassirou Diomaye su nee jeunes yi dem leen ci tool yi béy jeunes yi dinañ dem tool yi béy amna influence. donc war na ci am influence. kay bu ko bu ko posé mukk ci yalla pour le rek ci jamm non du du ko opposé ilaa yow ci li ma jàpp. Mm, bu ko posé mukk. donc suñu xolé résultat yi excès de confiance de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans certains départements. Mm-hmm. motax ñu ñak yenn département yi. surtout côté parce que la la l'élection ne se gagne jamais d'avance. élection ne kenn du ko gagné avant l'heure xébuñu jomay excès de confiance parce que dañ ko tam di gagner pam malik Ndour mi yor xeyum ndaw ñu làbbale ko moom. fa dama né moom la wax dama ne so tàmm soo tàmmee di gagner ca gox. Mm-hmm. tu vas dormir sur tes luy temps temps ba ca war pour nga def campagne électorale defoo ko fa. Mm-hmm. liggéeyuñ sen réew. dañoo liggéeyul seen base. Mm-hmm. politique base la quoi. pendant ce temps. Pastef ña ngay organiser wu ca base ba. Mhm. erreur bi ab Ablaye Wade defoon ba ñun ñu wër ko ndomb gagné ko en 2012. erreur boobu la ñu def ñun ba ñoom ñu wër ñu domb gagné ñu parce que ñu ngi amoon ay cellules yu taxaw au niveau de leur base. parce que Pastef amuloon base Médina tey am na fa base bu taxaw. kon politique boo ci defee erreur du la ko baal. déedéet les erreurs en politique sa pay cash. Oh. te moo andi defet bii mais jàngatuñu. les résultats des élections ñaari élections yi 2022 législative 2022 ak local 2022 ak législative 2022 mhm. amuñ ci lecture jangatuñu ko suñ ko jangaton amon na ñaari at pour corriger mais dañ dan taxaw man mi sax man mi en premier dama dan taxaw fi ne ñoo gagner parce que ñoo leen rawee six cent mille voix mhm, mhm. mais gisuñu percée bi ñu def ñoom ba tollu ci un million soixante mille voix parce que nag en politique on te dit soo ñàkkee doo taxaw ne ñàkk nga. Mhm. da naan yaa gagné. Mhm. dafa mel ne loolu moom moo daloon démb kii di Amadou Ba. Amadou sax démb maa ngi foon. démb sax boo ko xoolee xam ne tànkam dam mën a de. non non non dañuy waxtaan démb maa ngi foon. voilà. maa ngi foon ci guddi yi. Mhm. ba deux heures du matin fa laa jóge dem ñibbi. mais démb ak situation bi nu mu demee. li mu wax nii tey mënu ko woon wax démb. Ah, parce que boobu mbooloo ba bari na yaakaar amoon na. Mhm. nit ñi jàppoon nañ ni gañe nañ ñi ngi jot yenn score yi. waaw kay loolu loolu aussi tam xam naa après dinañ si duggaat bu baax a tax continuer foofu ba mu ñëwee mu gis li mu gis wax li muy wax. Mhm. mais ba mu waxulee rek la nit ñi war a xam ni. yaakaar ci guddi googu bun Abdallah Dionne ca foofee la waxee woon moom. 2019 cest à ba mu taxawee wax ni gagné na rek mm-hmm. le nit ñi waron xalaat parce que su gagné won demb la koy wax effectivement mais puisque xalé yi amuñu expérience politique boobu xalaatuñu bon ñun ñi nga xamni yalla may nañu expertise ba Amadou waxulé man la félicité Bassirou Diomaye mm-hmm. parce que yàgg nga fekk yàgg naa fekkem daje xam xam na muy demee. ñu ñëw ci résultat euh, yooyu nga xamante ne moom moo doon am démb parce que dafa mel ne démb des fois nga gis benn dëkk boo xam ne dañ naan kii di Bassirou Diomaye Faye moo ko gagné ba ñu jot ñu jotaat euh, résultat yoo xam ne dañ naan Bassirou Diomaye Faye gagné wu ko kii di Amadou Ba moom moo ko gagné manipulation boobu des fois lan moo koy indi. xam nga parce que des fois du ci PV yi da ngay gis. loo xamante ne sax amul signature xam nga dafa am ñoo xamante ni dañuy dañuy dox ci loolu ci ñaari côté yëpp mhm. kii am na résultat bi kii am na résultat yi. Mhm. mais soo nekkee kilifa ci politique. doo déglu lépp doo déglu dara lu la tere di wax. Mhm. doo déglu leneen ay procès boo ngay dajale. effectivement. mais dañoo nekk ci champ politique boo xamante ni sooy déglu ñenn ñi da ngay réer. Mhm. parce que démb toog nañ siège résultat Fuuta commencé ñëw rek booy commencé jubilé. waaw parce que foofu écart bi. dafa bari écart bi dafa rëy. voilà waaw parce que mais 2019 Fouta moo moo def. moo defar affaire bi boobu boobu fàtte nañ. écart yi am. ci diggante yeneen régions Dakar Thiès donc gars yi. cest à lépp lu leen di jox espoir. Mhm. day tax ñuy jubilé. non région de Diourbel moom ni ñu ko ñàkkee dafa dafa am doole trop. mais nag résultat yi au niveau national. Mhm. war naa tiital le candidat qui a gagné. ah parce que maanaam mooy yan nañ ko ko. waaw daf ko war a tiital. <laughs> dañ ko yen su commencé nel su démb su nelawee rek c'est parce que il n'est pas un excellent président. Ah woteel nañ ko de démb warul nelaw. ko de. démb la war a commencé liggéey parce que yaakaar bu rëy a rëy lañ teg ci kawam te yaakaar boobu bés bu tasee ci biir pale ba lañ koy fekk. parce que yaakaar bi rëy jeunesse bi léegi dañu. confiance xam nga lu gënu lu lu lu lu lu.